أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم mbokk taalibe yi mbokk am di jaam yi suñuy soppi suñuy xarit man sëriñ Abdoulahi Wade Ndiaye maa ngi nii ku nekk ci turam ak sandam di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di leen balu xaq tey ñaanal ñëpp jàmm tey sàkku ci yéen ñaan tey nag dañoo ñëwoon pour partager ak yéen benn yoon wu am solo ci tur yàlla yi di xayu qayyum nga xam ne tur yàlla yu am solo lañ ci biir tur yàlla yi nekk tur yàlla yu am doole nekk tur yàlla yoo xam ne li muy dikk lool ci góor yàlla yi bëri na ay nekk tur yàlla boo xam ne képp ku mës sikar sikkar rek jaar nga ca daanaka waaw boo ko jaarul ci yax jaar ko ci istixfaar al qayyum ya astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum alif lam mim allahu la إله إلا هو الحي القيوم allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum kon ñoo xam ñaari tur la yoo xam daal bëri na importance bi daal fu ñu ko natt weesu na ko waaw ci istixraaj alhayyul qayyum nag moom daanaka lu bëri indi nañ ci ay istixraaj lu ci mel ni Makka Medine lu ci mel ni amwaalu dunya et cetera et cetera waaye tur la wa nga xam ne daanaka li ci nit ñi gën jublu bokk na ci wàllum koom am am waaye tur yi ngëneelam yaatu na fu ko waaye natt weesu na ndax tur la boo xam ne maanaam ci lim yi rek lim yi li ko dalee cent soixante quatorze jëm kaw rek lu ne mu waay mën na ko cee def waaye man li ma leen ciy jox ni yoon bu gàtt la bu simple ci yax bi waaye dana ànd ak tamit tur woo xam ne xayu xëyum la jàpp nekk tur woo xam ne borom xam-xam yi ràññee nañ ko te dëppoo nañ ne ci tur bu wér la boo xam ne bokk na ci tur yi jàpp xayu xëyum donte xayu xëyum bëri na tur yoo xam ne jàpp na ko si ak ay talsam yuñ ko tëggal ndax lu mu gàtt gàtt gàtt jàng nañ ci ba jàpp xayu qayyum ci adadu nafsoom ja am nañ ci ay talaasim yu bëri bi ko jàpp ñetti yoon muy bartaasiyu xam nañ ko bi ka jàpp juróom-ñaari yoon bi ka jàpp fois bi ka jàpp neuf fois bi ka cent soixante quatorze boo ko dara boo ci cent soixante quatorze talsam xam nañ ko mais lu ñuy intéressé du loolu ndax talaasim dafa bëri ay danger risque ci boo xam naka nga koy jëfandikoo lii ñu ci fas yéene joxe nag lu sedd la yoon bu sedd bu gàtt woo xam ne ñépp mën nañ ko jëfandikoo accessible na ci ñëpp te amul benn danger te nuuraan yu xaqiiqi yan la ci tur yi nga xam ne tur yi sell yu leer yi la bokk waaw yoon bi nag ñu joxe lu simple la mu di lii may waaj wax képp koo xam ne am nga soxla alal wala nga am aajo boo bëgg a faj bu mu mënti doon ndax xayu xayum danay dox ci wér gu yaram waaye danay samp ki koy zikkar képp kuy zikkar xayu xayum ku jug dal sa kaw du ko nettali ni mu mënee wërsëg noonu la mënee kaaraange waaye noonu la mënee samp sëriñ bi nga xam ne dafa toog ci dëkk wala ci béréb di ñaan ba kenn du ko mën a yàqal ci baatinam waaye kenn du ko mën a tere jot wërsëgam ndax xayu xayum ñaari tur yi rek we kii signification ba rek ko dégg xam ne tur la buy samp nit ci aju dund gi ak aju sax ji maanaam nekk na tur yoo xam ne ku koy zikkar rek lépp loo nekk day naat day dund day sax day yokk tamit macha allah rabbi li ñu si joxe nag lu simple la yow mi nga xamne bëgg nga jëriñ ci xayu xëyum ci lu simple di fa say soxla sa bo xëyee muy dépense ak problème boo mënti am wala aajo bu la jaaxal nga bëgg ko di fa ci xayu xëyum dafa li ma lay waaj wax da ngay fexe jël ñetti fan saxo ko nak mo gën li may joxe waye ko xamne am nga soxla rek te bëgg ko faj rek da ngay wut benn fan wala ñetti fan sa dépend ci sa ijaaba ndax nit ñi yam waye gën gi bari juroom ñaari fan du ko wess su ko defee li ngay doxal niñ koy doxale mooy boo demee ba julli diggante moo xam diggante timis ak gee wala boo jullee gee ba pare da ngay yeesalaat sa njàpp daa di la ñaari ràkk bu njëkk bi fatiha alam nasrah juróom-ñaari yoon beneen bi ci tegu fatiha iza jaa nasrullahi wal fath juróom-ñaari yoon soo paree nga sëlmat boo sëlmalee nga daal di jàngaat fatiha benn yoon jàng astaghfirullah soixante-dix fois jang salatu ala nabi bo man mo xam salatu fatih wala bo lim xet salatu ala nabi bo djub rek nga def ko 70 fois so paré nak nga dal di zikr ya hayy ya qayyum 174 fois par ordre 300 muy 470 après 100 so paré nak nga tek ci tour bi ma len di waja bax tour bi nak mo ngi nek ahlul tamhadin ahlul tamhadin ahlul tamhadin mo ngi japp 174 di hayy qayyum di nekk bokk ci tur yi nga xam ne tur tax xayu qayyum lañ waaye bokkaat tamit li ci gën a am solo ci ahlalu tamhadin mooy ahlalu bi ka tàmbale wala ahlala tamhadin boo ci wax baax na ahlala mooy allahu bokk na ci turu ismu zaati yi nga xamante ne allahu lañ jàpp ndax boo jëlee lii di ahlala bakk madu jay naju ba ci wakiilu wakiilu moom ci asmaullahi na ñoom ñëpp allahu lañ jàpp waaye bëri na takk jàkk bii boo ngi fii ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ñu ko toppoon duñ fi jógee ndax musala sa Ghazali rek juróom-ñeenti bët yëpp xaraf boo ci jël am na tur bu ñu ci tëggal allah mu dugg ci langue syriane wala mu dugg ci asmaawul jabarutiya waaw nga xam ne tey boo jëlee lu ci mel ni ay kamaaxu ëkk mahoog yooyu yëpp waaw xaar ma yem foofu daal ndax bëgguñu sori ci yenn bagage yi comme loolu du suñu sujet moom dañ ko ci kii rek waaye ëhlalu di allah nga xam ne turu nuuraan yi dëgg la bokk nag ci tur bii di ëhlalu tamhadin nga xamne moko tambali di bop saxar bi kon nga xamne tour tur la wo xamantene manam haqiqatu nuraniya li nga xamne dafa bok ci tour xayu qayyum su ko defé na nga zikar tour 174 fois soo ko zikaree 174 fois par ordre croissant 470 ans so pare So nga commencé wat ya xayu ya qayyum 174 fois nga zikaraat ahlalu tamadin cent soixante quatorze muy ñaareel bi so pare nga zikaraat ya xayu ya qayyum 174 fois So pare nga zikaraat ahlalu tamadin cent soixante fois bu nek yaangi am ñetti jotaay ci biir sikkar mais noonu nga koy rappelante boo ciy def nag par ordre croissant nga koy defee ndax da ngay xëcc mooy jàpp commencé du plus petit au plus grand maanaam quatre soixante dix cent mu nekk cent soixante quatorze soo paree nag nga daal di sikkar salaatu ala nabi soixante dix fois daal di ñaan sa soxla yépp daal di koy tëjee subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tegaat ci ñetti ayatul kursi ngir aar zikar bi ndax am na ñoo xam ne sàcc wird rek la ñuy def loo wird ñu kaf ko su ko defee nag nga teg ci ñetti ayatul kursi tegaat ci benn salaatu ala nabi daal di jàpp sa njàmm lii nag ma joxe boo seetloo yaa ngi am sa xayu fois muy cent soixante loolu rek secret dépense la ndax xayu qayyum ku koy liggéey jël cent soixante quatorze multiplié par trois yaakaar naa dana jox daal moo jàppatal sam di barta si nga xamante ne moom xayu qayum la soo ko soo ko xayu qayum ci limu 174 boo ko 3 fa fois lim ba lay jox ko kep ku ko saxo di ko liggéey ci ya ya sa xayu qayum ya xayu yaa qayum képp ku ko saxo di ko liggéey bis bu set doo ñàkk dépense do ñak alal do ñak dara lepp lo soxla ci bis bi day kay am ci kàttan yalla ak mbaax su ko defé nak lim bi fofu la taxaw ku mu neex nak li bokoy koy liggéey nga rëddal ko xawaatim mo xam mu salasu continue la wala mu salasu wilaay wala mu salasu dëxm mu si ñu ko xam su ko defé beytu xal bi nga def ci soxla soxla ben xawaatim ak nii comme genre xawaatim bi mais xawaatim bi soo paree xayu xëyu nga koy nga koy nga koy nga koy waralee yaa ngi gis xeetu xawaatim bi nga ciy jëfandikoo su ko defee nag képp koo xam ne mën nga dagg xawaatim rek su la neexee daggal ko xawaatim ci béytu xaal ba nga def sa soxla bi la tax a jóg soo paree nag nga jël xawaatim bi bind ci ñett benn bi nga def ko sa kalpe beneen bi sa suuf sa jaada beneen bi nga di ko raayoo booy booy zikar wala nga di ko sangoo wala nga jël benn bi def ko sa téere ndik beneen bi sa suuf si jaada beneen bi nga def ko wala nga jël benn bi def ko sa suuf si jaada beneen bi nga def ko di ko raayoo beneen bi nga def ko sa kalpe lii daal képp ku ko def diirum ñetti fan wala juróom-ñaari fan wala sax bis ba nga xam ne ci nga ko defee yàlla faj sa xaaju te képp ku ko saxoo nag doo ñàkk dara doo jooy dépense doo jooy alal doo jooy daraja doo jooy yokkute soxla boo am yàlla faj ko da nga am yëkkati ko da nga am wërsëg da nga am leer da nga am jaamu yàlla te da nga am wilaaye tamit ci yàlla ak baax ci barke xayu xayu saraxam nag man damay faral di wax naan sarax la ca gën mooy bala rawxaan bii nga xam ne da nga tëdd guddi ñu war la ko boobu mooy sarax xaqiqa ni tur boo gis waaye terewul nag tur yàlla booy jëf bu boobaa da nga jiital sarax ngir mu gën a yombal ijaaba ci biir loolu nag képp koo xam ne bëggal na ko saraxe rek balaa muy tàmbale mun na saraxe juróom-ñaari kilo ceeb saraxe juróom-ñaari tàndarma juróom-ñaari soow nga daal di koy jël daal di koy def sarax incha allah nga koy tàmbali la neexee tamit loolu yëpp nga bañ ko def benn ginaaru rek daal di koy jël sarax su ko defee boo zikkaree bu laajee sarax yu gën a leer te rawaxaani nangu la dañ la wax sarax man nañ bëgg su ko defee daa ci xam dara waaye di leen ci biir loolu suñu produit yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci wàllu kaaraange biteel bii nag ngeen di gis biteel la boo xam ne képp ku am liggéey bu ci sa yaram wala ngelawu seytaan wala cat ak boo ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla yàlla na ci defal tawfeex nga tàqali ko moom ca saasa biteel la boo xam ne alxuraan lañ ko defaree saafara si ay sunguf yoo xam ne dañ ko wuti wuti ba war képp ku ci soxla rek boo ñu contacter ñoo ngi koy wécceekoo ñeenti junni ndax jamono dafa naqari te foog ñu jàppalante suñu biir képp ku yittewoo rek boo ñu woowee ñu baax la ci nga raxas sa yaram ba mu set bi ci cat ak làmmiñ ak lépp loo xam ne pexem noonu la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa